mercredi le premier février mbokk yi dal leen ak jàmm si xibaar yi ñu fi jotee tënk kii di Mame Birame Wathie nag nee na moom ma ngay jot ay menaces yu doy waar moom mi di Mame Birame Wathie yi nga xam ne da koy faral di def di dénoncer moom fële sa wal fajiri moom nag nee na nag am na ak jiitaange ak njàqare jamono ji dañuy wax ak yéen moom Mame Birame Wathie ngay jot ay menaces yu jugee fu nekk di dal si kawam moom mi di Mame Birame Wathie moom mi di président Ousmane Sonko doon amal benn conférence de jamono ji ñu doon wax ak yéen léegi léegi moom mi di Ousmane Sonko coowal TER bi nag daan na si am lum si sànni di wax que ne Macky Sall tàmm na maanaam fu askanu Sénégalais concentré woo si lenn rek bëgg xam seen xaalis fi ñu ko dugal rek mu ma indi créer ay li nga xam ne moo di ay dossiers yu amul bopp amul génn jàppal Ousmane Sonko bàyyil ba tax askanu Sénégal seen xel génn si bi la coow moom Ousmane Sonko ma ngay xawal ndaw Sénégal nañu génn xeexal seen réew ñu toog seeni kër li ñuy wax teguñu ko fenn moom Ousmane Sonko muy waxtaan yonent bi sallallahu alayhi wa ba nga xam ne ne bëggoon na dara sax dafa xeex maanaam pour am dara moom mi di Ousmane Sonko Aïda Mbodj nag ma ngay xamal Ousmane Sonko ne moo ngi si ginnaawam ñoom ñi nga xam ne ñoo day wax Yewwi Askan Wi duñu ko bàyyi benn yoon te duñu ko seetaan mbokki internet Buzz M TV ki nga xam ne moo di Samba Kane nag moom nekk tiktoker jàpp nañ ko ñaari atum kaso la euh, tribunal bu Louga waxtaane moom lañ koy tëj ba pare amaan na ko li nga xam ne moo di vingt mille francs maanaam ñeenti junni ki nga xam ne moo di Samba Ka jamono yi la weesu nag dafa defoon benn cambriolé moom mii di Samba Ka tiktokers police Linguère le 14 janvier dernier bi nga xam ne weesu na moom mi di Samba Ka nag amaan na leen ko li nga xam ne moo di vingt mille francs maanaam ñeenti junni ba pare tëj ko ñaari atum kaso